Karim Wade dama jóge Paris am lu mu président Wade santoon ma dem ci Macky Sall di wax ak moom bi ñuy wax ba egg ci dossier Karim Wade il m'a dit écoute un dossier bu nekk nekk ci benn procédure man mënuma ko arrêter par contre bu ñu demee ba dossier bi ñu boucler ko ba mu jeex ba toute la procédure est terminée condamnation appel cassation sama pouvoir constitutionnel maye na ma ku ma bëgg a gracier ma gracier. mais procureur Aliou Ndao waxul loolu. waxul lan. procureur Aliou Ndao waxul loolu. waxul lan. procureur Aliou Ndao waxul lan waxul loolu. lan nee na le chef de l'État s'est impliqué ci li nga. xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy. procès il raconte des histoires ci ci Karim Wade. et puis pour que Aliou du référence xam nga lu tax du référence je le regrette de le comme ça yow mënoo nekk procureur de la République ñu dénk la un dossier il y a même pas quelques années da gis les militaires par exemple boo jógee armée pendant cinq ans tu n'as pas le droit de prendre des positions na loo xam même bu dee ne droit may na la ko moral mayewu.